kon mbokk yi incha allah ñu ngi war a jël fukkeelu aaya ak ñaar ci suuratu luqmaan suuratu luqmaan luqmaan fi fi suñu borom di waxee ni wa laqad aatayna luqmaan alxikma alhamdulillah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain bokk ñi ngi santaat suñu boroom ci daje ci am néegam fas yéeni jàng lii di ab téeréem doonte ne ni ci ni ngeen bokk gisee bari woon na lool ay mbooloo yoo xam ni daanañ jóge ci gox yu sori di ñëw di ko mën a teewe waaye fitni bii ñu suñu boroom subhanahu wa taala nattoo ba tax ñi yor kaaraange réew mi jël li ñu tuddee couvre-feu buy jeex neuf heures buy commencé neuf heures tax na ba ñooñu mënuñu teew loolu ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo indi loolu yal nañ ko teggil ci jàmm daañ defit suñu kemtalal kattan ba incha allah bu ñu mënoon di julli huit heures dix huit heures vingt fekk nit ñi tasaaroo nañu am quarante minutes yu dox seen diggante ak seeni kër di fàttaliwaat nit ñi it ne suñu borom nee na jafe-jafe bu ne ànd nag yombal inna ma ala usri yusra su ko defee dars yi am fii ak yi am ci gox yu bari yàlla def na bu dee darsu jàkka je am na site bu ñuy tuddee xam sa diine heure boo ci duggee incha allah dars yi yëpp da nga ko fa mën a am am na beneen site bu ñuy tuddee xam islam point com daanaka foofu boo fa demee darsu jàkka ji rek moo fa nekk da nga mën a dabantal lépp lu la faraw bu dee ne it sa numéro whatsapp jox nga ko ñi yor groupe bu jàkka yi bokk na ca 77 814 42 20 soo xisee ba dugg ci groupe bi moom waxtaan bi fi am day ñëw sa téléphone directement loolee mbokk yépp dafa am ay mbokk yoo xam ne ñoo koy taxawee yaakaaruñ ci lu dul payug yàlla yàlla na yàlla fay leen fay gàncax yaakaar kon incha allah cheikh Ousmane dafa am ngànte tey ñu bàyyi ak cheikh Alioune mu jëlal ñu suñu bind bu njëkk.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله وإذ قال لقمان لابنه وهو يعده يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وخصاله في عامين وخصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير بارك الله فيكم ñuy fàttali ne tey mooy nekk le 22 ci Jumada al Oula ci 1442 di tombeeg le 6 décembre ci 2021 ah 2000 2000 le 6 janvier ci 2021 non أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سني برمني ولقد آتينا لقمان الحكمة ñun day joxoon nañu lukmaan lii di xam-xam bu xereñe muy sagesse anishkur lillah lañ ko dénkoon mooy santal te yàlla tax wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi kuy sant nag boppam dong la santal wa man kafara fa inna allaha ganiyun hamid ku weddi it sa borom yàlla mooy ki woomle mooy ka nga xam ni cant yépp moo ko yeyoo wa iz qaala luqmaan libnihi fàttalikul ba luqmaan di wax doomam ja wa huwa ya'izuhu fekk ma ngi koy xub yaa bunayya laa tushrik billah ay sama doom bul bokkaaleeg yàlla mukk inna shirka la zulmun azim bokkaale day nekk na tooñ goo xam ne gu màgg la wa wassayna al insaana bi waalidayhi dénk nañ doomu aadama ci ay way juróom xamalathu ummuhu wahnan ala wahn ëmboon na ko yaayam lompañ ci kaw lompañ wa fisaaluhu fi amayn gannaaw ba feral ko gannaaw ñaari at yam ka nampale anishkur li wa li walidayk kon dénk nañ la nga sante ma man yàlla sant say wayjur ilayya almasir te xam leen ni ci man la lépp di dellu mi ngi noonu mbokk suñu boroom dañuy wax fii kii di ab jaamam bu ñuy wax luqmaan boroom xam-xam yi am nañu ixtilaaf ndax yonent la wala du yonent la gën a not mooy du woon yonent yàlla tànnoon na ko joxoon ko rek xam-xam am na ñu naan sax nit ku ñuul la woon donte ne ñuul ak xees ak jaune loolu itteeluñu ñi itteel mooy suñu borom moo feddali ne joxoon na ko xikma mbokk xikma mooy xam-xam bu xereñe ana kan moo koy am mooy ki xam la yàlla bëgg ba pare jëfe la yàlla bëgg ki nga xam ne amul xam-xam mënul am xikma ki am xam-xam te jëfewu ko it kooku kenn du wax am na xikma xikma mooy lu nekk nga teg ko fa mu war a tege waxtu wu nekk lan moo fi jot place bu nekk lan moo fi jot ku nekk lan la yeyoo lu yàlla yeyoo lu yonenti yàlla yeyoo lu keneen ku dul yonenti yàlla yeyoo ba lépp jeex loolu mooy al xikma suñu borom mi ngi wax ci téeréem bu tedd bi ne wa man yu'ta al hikmata faqad utiya khayran kaseera ki yàlla may xikma muy sagesse na xam ni yiw yi gën a rëy may nañ ko ko looy am ci àdduna rek ci amul xikma kenn du ko méngaleeg borom xikma mi ngi noonu bokk na ci lu ko borom bi waxoon ay luqmaan santal te yàlla tax mbokk suñu boroom nee na ay xéewalam buñ ko doon lim mënuñu koo jeexal donte ni li ëpp ci doomu aadama yi natt yu ndaw ndawaan yi leen yàllay teg mooy tax ñuy fàtte xéewal yooyu nga xam ne kenn mënu koo lim ci li feeñ ak li nëbbu yépp dañoo war a sant yàlla naka lañuy sant yàlla mbokk sant yàlla moom mooy nga yëg ne mboole mi xéewal ci yàlla la jóge yow mii fi nga toog yaa ngi dégg yaa ngi gis bu la neexee jóg bu la neexee dem ca wanag wa tuur ndox ak yeneen yoo xam ne kenn mënu ko lim loolu nga gëm ne lii lépp ci yàlla rek la jóge amul keneen kuy xéewale ku dul yàlla mu safaanoo ak li ngeen di dégg ci rajo yi ak télévision yi mboole mi xéewal jàpp nañ ne keneen ku dul yàlla moo koy def loolu mooy bu jëkk bi te loolu ci xol ba lay nekk ñaareel bi mooy sa lammiñ wi nga ciy feeñal santug yàlla wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis lépp loo xamee ni ni am nga ko nga daa maa ngi sant yàlla day mi ma defal nangam diw na nga def alhamdulillah sant yàlla waaye ñetteelu sant bi mooy lépp lu la yàlla wërsëgal nga jéem koo teg fi neex yàlla commencé ci cër yi la yàlla may nopp yi bët yi làmmiñ bi tànk yi loxo yi lépp da nga góorgóorlu ba doo ko jëfandikoo lu dul fi neex yàlla alal ji la yàlla may bari nag néew na nga teg ko fi neex yàlla njaboot gi nga tàggat leen ci li neex yàlla ñett yi mooy daje ak cant doog a mat borom boobu nag jàll wa ala ni kii sant day boppam dong lay santal mi ngi noonu ca suñu borom moo ne fii gii ni ngi may sant maa ngi leen di dolli mbokk sant xéewalu yàlla yàlla mu ne boo ko defee ma dolli la ki la dig na la dama lay dolli kooku du la wàññi looloo tax amul lenn lu gën a mën a sàmm xéewalu yàlla cib jaam ci lu tol ni mu delloo ko fi neex yàlla loolu yàlla dana sàmm xéewalam ba pare yàlla day yokk la nga xam ne mooy say xéewal borom boobu nag ne képp koo xamee ni nii da ngaa weddi xamal ne yàlla mooy ki woomle ca mbokk suñu borom wax nañu ci benn xadisul qudsi xadisul qudsi mooy lu yonent bi nettali ne yàllaa ko wax ca bokkul ak alquran mu ne ay yéen nit nit ñi ak jinne yi su ngeen daje woon ci xolu ki gën a bon ci yéen ca mooy iblis mboolem lu yàlla bind xëy suba bon comme iblis borom bi nee na yàqul sama nguur gi dara bu ngeen baaxoon yéen ñëpp mel ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam yokkul sama nguur gi dara yàlla mooy alxani ca loolu la ab jaam war a gëm masalan da ngay gis ñoo xam ne jàpp nañ ne sëñ diw day jaamu na yàlla loo xamee ne nii tax na mu am aq bu yàlla gàll ci kawam mbokk loolu ay njuumte la am nañu daan dem bay wax ni Sénégal li fi yàlla am bu ko xeebee perte mbokk loolu ñàkk a xam yàlla la bokk na rek yow ndaw nga bàyyi xel ñun ñëpp ñu ngi ci planète terre suuf bi ñu ñu nekk mu yaatu lool ñeel ñu na am suñu borom mu ne inna ardi wasia yaatu na ñeel waaye jant bi ngay xëy di gis da ngay gis ne volume am ëpp na un million de fois lii di planète terre mi ngi noonu mën nañ cee dagg un million trois cent mille terre ci biir jant bi buñ ko dajale woon mën nañ ko dugal ci biir jant bi kese kon bu planète terre génnoon ci nguurug yàlla gi dafa mel ne benn pepp suuf boo génnee ci jàkka bi du toll noonu sax kon yàlla muy alxani ku jaamu sa bopp nga jaamul ku sant sa bopp nga sant nga nga sant ku weddi nag yaa lor sa bopp mi ngi noonu borom bi nag indil ñu benn toogaay bu tumuranke sunu jamono yi tey mooy wayjur buy toog ak njabootam di leen delloo ci seen boroom mbokk loolu lu tumuranke la léegi ana kan mooy wayjur bi nga xam ne mooy yar njaboot gi moom mooy télévision yi ak portable yi ñoom ñoo jël relais di teete njaboot gi fa nga xam ne moo leen neex mu am des ingénieurs yu mag yu ñu tàggat ci nu ñuy détourner xelu doomu aadama yi ci li ñuy tudde tey la troisième guerre mondiale loolu nag mbokk warul woon ci yow julit suñu borom nettali nañu ibrahim alayhi salaam lam doon toog ak njabootam di leen dénk wassa biha ibrahimu bani te yéen sama njaboot xam leen ne yàlla da leen a tànnal diini lislaam sax leen ci bu leen dee lu dul ngeen jébbalul ko sëtam ba yanquba ñëw borom bi ne ndax fekke ngeen keroog bi yanquba di sukuraat woo njabootam gépp ñu teew mu ne ah jàpp naa ne damay wujji sama borom waa bu ngeen ma gisatul li ngeen di jaamu sama gannaaw mu ne ko ah bàyyi fës yi nii wu ñoo jaamu lu dul yàlla bi ibrahima doon jaamu ismaïl di ko jaamu ishaq di ko jaamu muy benn yàlla duñ ko bokkaale kenn mukk jataay yooyu mbokk bàyyi bu nekk war nay nemmeeku ana fan la pas-pasu njabootam toll mbir la boo xam ne boo ci réussir yi am nga 99 pour cent ci li ci des boo ca échecgee nag perte nga di tout képp ko sàggan ba sa njaboot ñu détourné xelam xelam ba gëmloo ko keneen ku dul yàlla kooku perte nga ko kon luqman suñu borom ni toog na ak doomam di ko waar di ko delloo ci yàlla ne ko ay sama doom fexeel ba bul bokkaale ak yàlla kenn bul dem mukk di yaakaar keneen ku dul yàlla di xettilikoo ci keneen ku dul yàlla di sukkandikoo ci keneen ku dul yàlla bul bokkaale ak yàlla dara xamal ne kat bokkaale moom mooy tooñ gi gën a màgg gu nit di tooñ ca loolu it mbokk julit bu nekk da ko war a xam yàlla moo ñu tere njaaloo tere ñu carte rey nit naan sàngara waaye loolu lépp ku ko dajale woon mi ngi noonu ca bokkaalewul ak boroomam kee di bokkaale ca lee du ca def dara mi ngi jël alalam di joxe ci yàlla ci ci nit ñi mi ngi def lu nekk xamal ne du lu ñuy méngale bokkaale mooy li gën a bon lu doomu aadama ji def li gën a rëy lu doomu aadama def ci tooñ loolu la ya luqmaan jëkk dénk la nga xamee ni nii moom mooy doomam jooje gannaaw ba suñu borom nag indi koo xam ne bu xel nangu woon bokkaale ñoom rek la ñu war a bokkaale ak yàlla muy way jur mbokk bala ngaa jël sëriñ diw ak cheikh diw di ko bokkaale ak yàlla li gënoon a yey mooy sa yaay ji ak sa baay ji bu doon ku ñuy bokkaale ak yàlla rek ñoo waroon a gën a yey nga bokkaale leen ak yàlla waaye borom bi subhanahu wa taala ne déedéet wa wassayna al insana bi walidayhi dénk nañ doomu aadama ci ay way juram ngi noonu ne rek waa ji tukki ñëw jël doomam bu ndaw jox ko mbokkam wala dëkkandoom dénk ko ko ca mooy mu sàmmal ko ko ay yow xale bi it yàlla mu ne dénk naa la say way jur dénkaane googe moo gën a màgg digal suñu borom wax nañu ay ndigal masalan bu demee suratul anam mooy taalaw atul alaykum ma harrama rabbukum suñu borom jox ñu ay ndigal ak i tere ca fin ba mu ne zalikum wassaakum bi lii la leen yàlla dénk kon dénkaane moo gën a màgg ab ndigal kese dénk naa la nga def njëkk ci sa waajur yépp ah waajur yi day yow mi borom xel bu la ko yàlla dénkul woo ñin nga war a def ci ñoom njëkk mu am nag loo xam ne moom yaa ngi koy dund mooy lan mooy sa baay baay mooy def effort ngir ñu tabax kër gi mooy fay facture yi ordonnance ñëwee ñu na bàyyi problème bu ñëw ñu na bàyyi waaw yaay moom luy liggéeyam suñu borom nag di la fàttali fa yaay jaar ak yow avant baay di ñëw mu la xamal ne sa yaay ji moo la ëmboon coono ci kaw coono ba keroog bi muy teqalikoo ak yow ci wasin la ñu ne ndax pare nañu mu ne déedéet mu jàppale di la nampal ñaari at kon sant ma ca sant say waajur gis ngeen ndax bàyyi moom li muy def moom yaa ngi koy gis borom boobu loolu mu wax benn waay ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ayu mi yàlla yónni waaw man kan laa war a gën a defal njëkk ci jaam yi may dundal ci kaw suuf waxu ko sa imam waxu ko sa cheikh waxu ko sa directeur waxu ko sa jabar waxu ko sa doom def na ko sa yaay mu ne ko gannaaw sama yaay mu ne ko sa yaay gannaaw sama yaay mu ne ko sa yaay gannaaw ba la ko wax sa baay loolu la ca borom xam-xam yi di wax mooy wayjur yépp am aq am coono ci yow waaye nag yaay daa jaar ak yow fu baay jaarul ak yow yaay moo la ëmb suñu borom nee na coono ci kaw coono pendant neuf mois ma ngay jafte ma ngay waccu ma ngay feebar ma ngay nangam yaay moo la wasin soo ñëwoon dëkk bu mel ne Sénégal dañ daan wax diw mucc na biig mucc na mooy mucc na ci dee ba li nga xam ne mooy statistique yi ma mujj a dégg dañ naan la en Afrique lu bari ci ay gox plus de cinq pour cent non cinq pour mille da ngay gis ni ci jigéen ñi nga xam ne dañuy am doom dañuy faatu mille femmes yuy am doom cinq yi day faatu mu lay wan na un million de femmes cinq mille day faatu xoolal mbokk loolu ana ñaata la ñuy gis ñoo xam ne ba leen seen yaay di wasin lañ lañ faatu loolu muy benn gannaaw ba nàmpal yaay rek mooy nàmpal kon yaay muy ëmb yaay yi wasin yaay yi nàmpal moo tax suñu yeneen taali sam jox ko ñetti àq waaye nag nag ma sant sant say waajur yonent bi alayhi salaam wala borom xam-xam yi doon wax ko mel ni Ibn Abbas dana ko wax ne ñett yi ko ko teqale da nga xamul suñu borom mu ni nañu taxawal julli joxe azaka nañ topp yàlla topp yonent yàlla nañu sant yàlla sant waajur yàlla du jël benn saa bi ci des képp koo xam ne yaa ngi julli ca doo joxe azaka yàlla du nangu azaka ba ca doo yàlla du nangu julli ba kuy joxe azaka doo julli yàlla du nangu azaka ba ki ne day topp yàlla ci toppul yonent yàlla yàlla du nangu toppam ki nga xam ne danaan yàlla rek lay sant te faaluwul ay waajuram yàlla faaluwul cant gam koy sant loolu nag léeg-léeg mu am problème mooy yow doom nga nekk ci diggante ñaari waajur yu jubawut lan mooy pexe mi ngi noonu lan mooy pexe gars yi théâtre ñu ne doom ja papa jag yaa ji dañuy xeex mu toog rek kër kër ji bëri lool mu ji mu ne alaakul li mu xam ne leen daal laa ci xam borom caayu ju ma ca laal danaa ko def nangam ak nangam mbokk loolu xam ngeen day daal di am parparloo waaye mbokk doom bu nekk war ngaa am xikma la imaamu Malik dénkoon kenn ci ki ñëwoon ci moom da ko imaam dama am jafe-jafe man daal sama waajur yi léeg-léeg samay papa daf may def sant dara sama yaay na ma déedéet loolu doo ko def man nag damay jaaxle malik daa di na ko ati abaka wala tasi ummuk fexeel ba topp sa baay te bul mooy sa yaay gis ngeen bokk loolu xikma koy def kon fokk ngay naxante ak ñoom ba yaay du dem mukk ba yëg ne da ngaa gën a la bàyyi ci kawam waaye it bàyyi du yëg ne da ngaa topp ay ndigili yaay ci kawam loolu xikma la boo xam ni ndaw bu nekk war naa góorgóorlu bàyyi ci loolu léegi nag suñu borom subhanahu wa taala ni xam leen ne lu mu yàgg-yàgg ci man ngeen di dellu siwaat ca mbokku gàllawaay fexeel ba li ngay defal say waajur jublu ci keroog ba ngay dellu ci kanamu borom bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam baka ibnu mas'ud laajee li ñuy defal yàlla lan la ci yàlla gën a bëgg daf na ko mooy nga julli ca waxtu wa mu ne ko gannaaw ba mu ne ko gannaaw ba nga def njëkk ci say waajur mu ne ko gannaaw ba mu ne ko gannaaw ba nga gàddu dem jihaati fi sabilillah jihaat fi sabilillah li muy màgg màgg màgg la ngay defal say waajur loolu moo ko gën a kawe même bu doon dañuy faatu it bul fàtte waajur yooyu njëkk bi nga koy defal ci dund nan nga koy defal ci bi mu faatu foo toll dee ko ñaanal yàlla dee ko jéggalul loo man ci sarax nga génneel ko ko lii lépp dafa bokk ci sant ga nga koy sant ak laayi biir ga nga koy koy laayi biir te xam ne mënoo koo fay boo jëloon àdduna ak li ci biram teg ci loxo mënoo koo fay ñaan dong moom nga nga ko mën a mottalee yal na yàlla jéggal ñu yërëm ñu jéggal suñuy wayjur ak bépp julit mi ngi noonu bismillah
wa in jahadaka ala an tushrika bima laysa laka bihi ilm aw تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير barakallahu fikum suñu borom mu ni wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilm su waajur yo jógee nag di jihaat ak yow ay di def effort jëm ci yow ci nga bokkaale ma man yàlla bu leen topp mukk ci loo amul xam-xam bu leen topp mukk wa saahibuhuma fi dunya ma'rufa waaye nag teewul àndal ak ñoom ci àdduna ci njëkk wattabi sabila man anaabi ilayya ca nga jóg topp yoonu ka jeng jëm ci man summa ilayya marji'ukum gannaaw ba ci man yàlla mooy seen delluwaay fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ma xabaara leen ci li ngeen nekkoon di ko jëfe yaa bunayya ay sama doom innaha in taku misqaala habbatin min xardal su dee ne dafa tolloon lu toll ne benn pepp ci li ñuy tudde xardal muy lu mel ne sunu suuna bi rek gën koo tuuti fa takuna fi saxra mu nekk ci biir montagne aw fi samawat wala ñu def ko ci kaw asamaan ya aw fi l ard wala ci biir suuf yati biha allah yàlla dina ko indi yowm alqiyama inna allaha latifun xabir sa borom yàlla mooy ka nga xam ni mooy ki ñeewant donte ne latifit dana firi xam-xam bu sew xabiir mooy ki ñàkk kompa ci lu mën a doon mbokk suñu borom day wax ne su la yàlla nattoo ci way jur yoo xam ni ay yéeféer lañu ay bokkaalikat lañu ñu jóg nag ne yow tey jii nga dellu ci kéeféer ga ñu nekk il faut nga dund ko lan mooy pexe suñu borom mu ne bu leen topp ca mbokk yonent bi alayhi salaam nee na li ëpp ci nit ñi seeni way jur ñoo leen di bokkaaleloo kuy judd mbaax nga judduwaale fa in abawaahu yuhawidaanihi aw yunasraanihi aw yumajjisaani say waajur ñooy fexe ba nga bokkaale xeex boobu ñu lay xeex mën na nekk xeex multi forme daañ la xeex ci alal xeex la ci ay daraja ay personnalité xatal la ci kër ak lu mën a doon ngalawaay bu leen topp ki ñu duppee suñu jumaa ji di Saad ibn Abi Waqas gis nañ ne yaayam ba mu ko gisee mu dugg ci diine yàlla ji def na ko ah Saad da nga dugg ci diine ji bés ji wedd suñuy maam bis ni ki tey dootuma lekk dootuma naan ba dee xanaa loolu nga génn ci diine ji boo ko xam ne loolu pression bu metti la pression bu metti la waaye mu ne ko hey yaay boo amoon téeméeri bakkan sax di dund ko dee du tax ma génn ci diine ji gis ngeen suñu borom nag ne bul topp mukk say waajur ci loolu te it mu nekk règle générale bépp mbir bu la nit di woo jëme ca mu nekk mooy yàlla suñu borom mu ne bu ko topp la taati li maxluq fi maasiyati alxaaliq kenn du topp ko bind ki ñu bind ci may ka bind jàll wa ala waaye nag ndax mooy kon gedd leen boddi leen déedéet borom bi mu ne njëkk boo man ci maaruf ci lu baax def koog ñoom te it loolu ñu bàyyiloo ci xel lu bari ci ndaw yi sunna yi mooy da ngay jàng ba xam sunna sa bàyyi moom ma nga continuer ca xar fa foofa yaag man naam ray rayal xàmb yaag léeg-léeg di nelaw ba mi déeg mbokk loolu gis nañu ne ay njuumtir yu rëy la waaye nag solution bi du nga xeeb ko solution bi nga koy gëdd wala nga koy def lu nekk naxanteel ak moom loo mën ci njëkk la ko def keroog ba sunna leeree sa bopp sa baay daa war a yëg ne moom am na doom ji bees ay doom joo xam ne mi ngi koy jëriñ lu ko kenn jëriñul saahibuhuma fi dunya maarufa borom bi nag mu ne waaye demal toppi nag ka jéng jëm ci man te loolu mbokk muy ab sëriñ mbokk sëriñ munta ñàkk amul kuy judd judduwaale xam-xam fokk nga dem ci ku la leeralal yoonu yàlla bi teete la ci loolu muy ab sëriñ waaye mooy kan anaaba ilayya koo xam ne dafa sellal diine yàlla ji du la wax lu dul qaala allah qaala rasulullah safa nag nga xam ne saa maam nee na saa baay nee na saa maam nee na saa baay nee na ha ku yaakaar sama baay ku yaakaar sama maam nangam nangam fii ngeen nekk xam leen ne mooy foofu déedéet mbokk anaaba ilayya jëng jëm ci man du la jàngal lu dul la jóge ci yàlla du la woo lu dul jóge ci yàlla borom bi nag ne xam leen ne yéen ak way jur yeeg ku ngeen mën a àndal ci man ngeen di dellu si ma xabaara leen lépp lu ngeen doon def lañ doon def lan lay doon ndax mooy yu feeñ yu mag ya suñu borom mu ne déedéet ak lu mu néew néew néew néew suñu borom dana koy indi man ya'mal misqaala zarra ci lu baax da nga ko gis misqaala zarra muy poussière bi gën a tuuti ci lu bon da nga ko gis foo ko defee da ngaa dugg ci biir montagne yow rek da ngaa yéeg kaw asamaan da ngaa dugg ci biir suuf borom bi mu ne du tey danaa ko indi ñun ñooy dund ba suñu borom won ñu tey ni doomu aadama sax mënal na loolu moroomu doomu aadamaam tey jii waa ji yor portable bi da ngay gis ne réseau bi mu bokk na doon sonatel lam lu mu mën a doon mën na dem fu ko neex mën na dem heure bu ko neex di wax bu ñu toppee réseau bi mën nañ ko xamal ne heure tel yaa ngi woon parcelle heure tel yaa ngi tëngéej lii yaa ko wax lii yaa ko yónnee loolee ci gisul kenn koo xam ne jege na ko ndegam doomu aadama mën loolu ndax sa borom nag kon mi ngi jàngal doomam ne ko fexeel di def muraqaba ihsan bul ne fii gisuma bàyyi bul ne réew mi ma ne kenn xawma fi bul ne ah fii de wiit naa fi waaye bàyyil xel sa borom bi nga xam ne moom dara rëcc ko malaaka yim la booleel ñuy enregistré dara rëccu leen te lépp loo xam ne def nga ko boo ñëwee ci kanam borom bi da nga ko fekk foofu loolee ku ne bàyyi ci xel loo nar a jëf nar koo wax bàyyil xel keroog ba ngay dajeeg moom bi si penc nga xam ne bu doon lu bono da nga ne ay waay ak a neexoon sama digganteeg lii nekk bu'dal mashriqayni sori ma lool mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala kon loolu la wax insha allah ñu xool nan la luqman jeexalee
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضب من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير jazakumullahu xayra suñu borom mu ne yaa bunayya ay sama doom aqimi sola taxawalal julli wa amur bil ma'ruf del digle lu baax wanha anil munkar del tere lu bon wasbir ala ma asaabak te del muñ lépp loo xam ne dal na la inna zalika min azmi al umur loolu day dana bokk ca la gën a dogu ci ay mbir gën caa màgg wala tusaayir xaddaka linnaas bul nekk di jëngal sa lex bi ñeel nit ñi wala tamshi fil ardi maraha bul dox ci kaw suuf di di puukarewu inna allaha la yuhibbu kulla muxtaal yàlla di bëggul kenn koo xam ne daa yëg boppam muxtaal mooy koy puukarewu yëg boppam ci yemul ak nit ñi faxuuru koo xam ne nii tamit dafay nekk di dal ci kaw nit ñi muxtaal mooy koy yëg boppam fa xuur nag mooy ki nga xam ne yaa ngi lor nit ñi ca la nga xam ne mooy say wax ak say jëf di puukarewu seen kaw waqsid fi machik digg doomul ci sa dox waxdud min sawtik del sajj ci sa kaddu inna ankaral aswaati la sawtul xamir la yàlla gën a bañ ci kaddu yi muy kaddu mbaam mi ngi noonu mbokk luqmaan mi ngi naan doomam ay sama doom taxawalal julli taxawal julli bokkul ak julli taxawal julli mooy julli bu nekk nga def ko ca waxtu wa mu ànd ak laab ga ak la mu war a àndal te loolu it nañu xam ne yàlla yaatal na ko galawaay yow élève bi nekk école yow médecin bi nekk ca salle d'opération yow mi nekk ci tukki xamal ne yàlla yombalal na la bu xat-xat naree am ba nga ragal faat waxtu wi nga boole tisbaar ak takkusaan julli ko ci benn waxtu ci yooyu diggante une heure ci bëccëg ba ba jant bi di so heure boo fi amee quelques minutes nga boole tisbaar ak takkusaan may na la nga boole timi sëggee loole moo war yeyul ci lenn lu tax doomu aadama di faat waxtu borom bi jalla wa ala kon taxawalal julli loolu it way jur wu ne war cee bàyyi xel la gën a rëy la ngay dégal sa njaboot muy julli suñu borom ba muy tagg ismail alayhi salaam kaana sadiqa alwaad wa kaana ya'muru ahlahu bi salati wa zakat daf daan digal njabootam ñu julli mu wax yonent bi alayhi salaam ne ko digalal sa njaboot ñu julli ca nga mun ci julli googu laajuma la wërsëg man maay wërsëgal wërsëg ci loxo yàlla la nekk waaye fexeel ba njaboot gi moom di julli gannaaw ba sama doom àdduna ay force ñooy fii xëccante ñi nekk ci yoonu bon ñi ngi bëgg ñi baax fekk si leen waaye ñi nekk ci lu baax it dañoo war ñi bon fekk si leen kon del diglu lu baax del teru lu bon loolu mooy li gën a aar sa diine mi ngi noonu loolu mooy li gën a aar sa diine del diglu lu baax di teru lu bon ca nga muñ nag la la ca- la lay dal mbokk doomu aadama bi jullit xamal ni heure buy diglu lu baax teru lu bon man ngaa dégg wax ju ñaaw ñu nekk te mooy la gën a néew wax ju ñaaw ju nekk mooy la gën a néew man la yóbbu sax lor bu la ñu teg la ko aka bari ay boromi xam-xam diglu lu baax teru lu bon moo tax ñu tëdd kaso moo tax ñu rey leen moo tax ñu génn leen seeni réew waaye nag wasbir ala ma asabak muñal lépp lu lay dal ci ay nattu feebar ñëw na muñal muñ ko rafet ñàkk ñëw na muñal muñ ko rafet examen réussiroo muñal muñ ko rafet lépp loo xam ne sëy ba tas na muñal muñ ko rafet lépp loo xam ne dal na la muñal muñ ko rafet ca kanamu boroom loolee mooy la gën a dogu la gën a màgg ci li doomu aadama di def yàlla inna allaha ma assabirin yàlla ngi ànd ak ñi muñ ca dana leen matalal seen pay lu àndul ak benn réglé gannaaw ba mën a ko ay sama doom fexeel ba bul xeeb nit ñi boo leen rombee doo leen faale kuy wax ak yow nga dummooyu ko loolee mbokk ñu bari ci nit ñi bu dee yàlla ubbil na leen alal wala ubbil leen ay pal lu mel noonu la ñuy def dootuñu faale ci kenn xanaa dul ko leen amal intérêt ay sama doom bul dox ci kaw suuf di puuka réewu yàlla bëggut loolu xam-xam bu mu tax ba ngay dem di puuka réewu alal ju bari ak kër yu taaru bu mu tax ngay puuka réewu gannaaw ba bul nekk di lor kenn ci ay wax ak i jëf suñu borom yàlla bëggul ko mel noone te loolu it suñu borom ma ngi koy wax feneen aayo yu bari munoo fexe ba toll na montagne yi munoo fexe ba dóor suuf suuf di xar loolee nga doon ko modeste lii la ab jullit war a ah bàyyi xel fu mu mën a toll mu ne ko ay sama doom del diggu doomu ci sa dox loolee mooy bul forom rek tërërërër waaxu bu dul jeex ba nit ñi naan waa kii du muy dox waaye nag bul nekk di tempo da ngay nekk ku digg doomu tempo ngir wane da nga ragal yàlla islam xamut loolu yonent bi alayhi salaam bu daan ànd ak sahaaba yi dañ daan góor góorlu pour mën ko dab loolu la ñu bàyyi ci xel bu baax donte ne waqsit fi mashika bokk na li ko borom xam-xam yi di firee mooy digg doomul sa dox bul nekk koo xam ne fu ne yaa nga fa déedéet da ngay xool sa tànk yi fan ngay jëm loolee mi ngi noonu ba nga xam ne ab julit kenn du ñëw ne dama koo romb ca night club ba dama koo romb ca baar ba dama koo romb ca nangam déedéet ndax fépp fu muy dem da koy calculer waaye yéen mbokk wax sit fi machika bokk na ci fi ko borom xam-xam yi dund tey gën a jëfandikoo yow mi yàlla wërsëgal nga yor oto tey jii bu ñu xoolee mën ngaa wax plus de soixante dix à quatre vingt pour cent ci accident yi am excès de vitesse moo koy waral teeyal rek incha allah boo muñee rek da nga yegg fa nga jëm mi nga noonu waa ji daw cent cinquante kilomètres à l'heure kii topp ci gannaawam daw quatre-vingts wala cent wala lu mel noonu la naar ba waxoon saxaar ci ngaay naar ci ngaay lu yàgg yàgg bu nga yàgg dañ fekkente fañ jëm loolee kon ku ne war cee bàyyi xel bu baax loolu mooy tànk ya gannaaw ba it mu ne ko sa kaddu gi waxu dën min sawtik la ca jiitu mooy bul nekk yor jukko africain mbokk ñun africain commencé ci man kat africain ñun yàlla dañoo nattoo suñu kaddu fort dañuy nekk fii ñaar di waxtaan fi mel na ñoo moom koñ bi yépp am déet loolee mbokk boo demoon asiatique yi mi lu ñu noonu lu bari ci France ci européens yi mi lu ñu noonu mais ñun africains ñun yàlla dañoo nattoo loolu ku nekk nag da caa war a xeex ak boppam ba heure booy wax wax ji yem ña ngay waxal mi ngi noonu wax yem ña ngay waxal waaye di télélé lii di tànqal nit ñi mbokk loolu yàlla bëgg ko waaw gaa yi negam yàlla bëggul kiy wax ak kaddu neen ka nga xam ne daa bàyyi ba 11h ci guddi nag nit ñi defar seen lal pour tëdd moom mu jël micro am ko auzu billahi mina shaytaani rajim commencé nag yuuxu ba njël jot nan ngeen di jugé loolu ah nan ngeen di jugé loolu loolu mbokk tooñ mënut a passé loolu waxu dëgg min sawtika it bokk na ci mooy bu lu nekk nga wax ko yeneen bi alayhi salaam nee na man kaana yu'minu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut ki gëm yàlla gëm àllaaxira dellu wax yiw wala nga noppi waxu dëgg min sawtik bul lu nekk rek nga wax ko suñu borom mu ne li yàlla gën a bañ mooy baatu mbaam mbaam bu nekkoon fii di ngaax boo tollee fa doo dégg ko kon del wax wax ju dal del wax seetlu say wax mbokk lii mooy lu luqmaan jàngal doomam jox ko teggin yi tax mu jubóog boroomam bañ koo bokkaale te taxawal julli jox ko teggin yi tax muy jubóog société bi ca loolee la koy gën a may doom mooy mu jox cër ay waajuram ah jubóog ay waajuram loolee moo tax ku mën a nekkal ëllëg ci si biir xam teggin ya nga xam ne mu lay jëfandikoo ak moom lii mbokk dañuy gis ne teggin la yoo xam ne yal na yàlla wërsëgal ñun waajur yépp ñu nekk ay luqmaan yal na yàlla wërsëgal ñun suñu njaboot ñépp nekk njaboot gu dégg di ndigali yàlla ak ndigal yonent yàlla xam na mbokk comme ni nga xamee ni it noonu la ngeen xamee situation bi ni mu demee nii dañuy bàyyi bilal mu noddal ñu suñu noddee xam naa après dañuy julli question yi duñ ko fi mën a jël ngir ñi nga xam ne dañuy nibbi fu sori mbokk mi ngi noonu wallahu aalam wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain